Seex Fallu añ na fa màkk sànni jamra fon doj wa dem Arafat dellu umra dem na Safa dem na sama dalli fa ka xaw makaama dem mi na langale fa Seex Fallu ni sula ngañati yaa di suukar maa ma sa bali jël na ndam la Bamba Fallu laay Fallum Yàlla ala ci Mbàkke bu soy ni jaayam bamba di baayam fallu di jaaram yaa jaraway yaa jara joxi gaaya aouzu billahi min asheytan rajim bismillahi rahmani rahim salli wa sallim wa barik ala sayyidina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman asalaamaaleykum yéen mbokki jullit yi rawatina mbokk taal mi ngi teew seen télévision Mafatihul Bichri TV ginnaaw bu ñu santee suñu borom subhaanahu wa taala ñu ngi julli sayyidina muhammad rasulullah sangu sangi di ñaan tey siyaare Serigne Touba Cheikh Mountakha Mbacké mu yàgg fi daan ak wér di ko ñaanal sëriñ Cheikh Fall jëmm xalifa maam Cheikh Ibrahima mu yàgg fi daan ak wér noonu lañ koy ñaanal njaboot sunu daal Serigne Fall mboolem kilifa diine yi ak mboolem kilifa yi yéen mbokk taalibe comme ni leen ko waxoon saa su nekk rek si li nga xam moo di xew-xew yoonu murid xew nag bàyyiwul dara ba tax na seen télévision ma faatu Bichri TV teew leen fii si Touba fas leen lépp li nga xamante ne moo di màggalu Kazu Rajab édition 2018 ren nag màggalu Kazu Mafatiir bi ci TV waaw du ma guddal dañuy bàyyi rek soxna si ñëw yaatal li nga xam moo di program màggal bi jërë ngeen jëf. aouzubillah bismillah inna waliyallah asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, Serigne Mohamed Fall ñu ngi lay nuyu bu baax a baax euh, di la ziyaara di nuyu ñi nga xamante ne ñoom ñooy ànd ak télévision Mafatihul Bichri macha allah rawatina nag euh, ci xew-xew bi nga xam ne moom moo di Kazu Rajab ji kom ni nga ko waxee rek équipe Mafatihul Bichri yëpp ñu ngi fii ci dëkk bu sel bi di Touba macha allah. fas yeneen rek waajal lépp loo xamante ne nii dafa jëm ci màggal gi waaye dañ koy door ci préparation yi nga xamante ne nii euh, noonu la ñuy euh, waajalee màggal bi macha allah. ci lépp loo xamante ne nii rek ay direct la euh, di ngeen ci ànd ak télévision Mafatihul Bichri TV ci ay invité yu am solo ci ay thèmes yu am solo waaye it conférence religieuse yi nga xamante ne nii euh, dañ koy amal rek lépp ci li nga xam ne moom moo di màggal gi ba tey di ngeen ci ànd ak euh, télévision Mafatihul Bichri waaye it ba tey duñ ci yam ci wàllu programme fas yéene nañoo rek dem ci barab yi nga xamante ne nii ñoom ñooy barabu ziyaar yi fu ci mel ni kër Serigne Abdou wala bépp kër goo xamante rek mën nañ ne Eh, këruk eh, maanaam njabootuk eh, Serigne Mouhamadou Fadel la incha allah ngir rek dundandoog yéen li nga xam ne moom moo di événement bi incha allah waaye it ba tey duñ ca yam fi nga xamante ne ni moom moo di barab yu tedd yi nga xam ne ñu ngi ci Touba donte na fépp a tedd lu ci mel ni jumaa ji it dinañ ci ànd ak yéen ci ay reportage yu am solo incha allahu waaye it ba tey ci li nga xam ne moom moo di ambiance beeg alentour jumaa jekk lépp rek ngir won leen eh, ni nga xam ne noonu la ñuy eh, dundee màggal gi ndax dañuy wax ni télévision Mafatihul Bichri télévision ñëpp la waaye rawatina ñi nga xam ne ñoom ñoo di diaspora bi te saa su nekk rek télévision Mafatihul Bichri day dox ci loolu bëgg képp koo xamante ne nii rek xëy na amoon nga yéene ak eh, pas-pasub ñëw ci barab bu tedd bi ngir dund màggal gi te it amoo mënoo ko matal télévision Mafatihul Bichri day mel ne rek macha allah ñoom dañ leen fay nekkal ba tax na ñu leen koy dundaloo en live ci lépp loo xamante ne nii rek dina leen soxal waaye it dina euh, dëppoo ak li nga xamante ne nii moom moo di màggal gi xam naa rek incha allah ngir euh, waajal wala sax door li nga xam ne moom moo di suñu programme yu am solo yooyu euh, tey nekk suñu premier jour bi ñu ñëwee fii ci dëkk bu tedd bii di tuubaa kon xam naa ne rek incha allah dañuy ànd ak suñu jëwriñ Mouhamed euh, Fall Baye Fall daal di rek ànd ak suñu caméraman Serigne Gora daal di wan rek tàmbale li nga xamante ne nii moom moo di liggéey bi. ah jërëjëf soxna su jërë ngeen jëf mbokk taalibe yi comme ni mu ko waxee rek incha allah màggal Kazu Rajab édition 2018 fas yéene lépp leen soxna su wax si programme bi rek seen télévision Mafatir bi dina si ànd ak yéen yéen ñi nekk si bitim réew ak fii si réew mi nga xam fii bi TV si la màggal du allah jërë ngeen jëfati jërë ngeen jëf yéen mbokki taalibe yi ngi teewlu seen télévision Mafatihul Bichri TV ginnaaw bu ñu jógee kër sëñ Bassirou Mbacke moom sëñ euh, Fallou Khadim Rasoul euh, ñu ngi fii si kër sëñ Abdoul moom Cheikh Mouhamadul Fadal ñu ngi feggoog doomam di sëñ Khadim Mbacke mi nga xamante ne euh, daa gis di dégg ay waxtaanam si li nga xam moo di ndaje yu mag yi muy borom xam-xam bu ñu ràññee loolu si yoonu murit xaaral daal di koy taataan suñu micro mu daal di ñuy andi yi nga xam daanaka. moo ruusoo si moom si li nga xamante ne ñoom noonu la ñuy waajalee bis bi ndax xam nga ne bis bi at bu jot euh, suñ ne euh, des na ñaari fan bis bi jot ñoom séddi dañuy manqué te benn conférence mag si buntu euh, fi nga xam moo di kër Sëñ Fallou Mbacke xanaa ñu bàyyi la ak kàddu gi nga daal di wax ak mbokk taal bi lay teewlu si Bichri TV. Euh, na ngeen waajale bis bi en tant kër Serigne Abdou Fatah ak tamit euh, li nga xam moo di euh, wàccaay bi nga xam mooy conférence di nga xam at bu jot ñoo ko amal ñaari fan laata màggal ak tamit ren ñu gis benn soppeek goo xam daf see am ndax at bu jot daan nañ gis conférence bi daan na tàmbale ginnaaw gee wante dañoo gis incha allah bu ñu jullee tàkkusaan la fas yéene tàmbale. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñoo ngi junni ñuy bokki julli bokki taalib yi yëpp di jiital ci nuyoo bi saahibul fadila Cheikh Mouhamadul Muntaqa xaadim rasul di ñaan suñu boroom yàggal ko fi loolu te may ko wér di ñaanalit bu baax euh, Cheikh Abul Baraka mi nga xam di moo jagoo buntu Cheikh Modou Fadal di ñaanal ko mu yàgg fi lool ak njabootu Cheikh Modou Fadal yëpp di leen nuyu bu baax ci turu Cheikh Abdou moom Cheikh Modou ak njaboot gi ak bokki taalib yi yëpp. bu loolu weesoo fi Cheikh Abdou Fatah de li muy waajale màggal gi moom mooy tàmbale ci sëñ bi rek yam ci sëriñ bi. Euh, ndegam bu màggal gi ñëwagut ci ci lenn loon lay nekk mooy tàmbali ci sëñ bi rek nekk yem ci sëñ bi kon bu màggal gi ñëwee wax noppi ba weer yu teroo ba léegi mu ngi waaj ànd ak bokk yi ak taalibe yi ak njaboot gi yëpp fas yéene euh, egg ci bisub Cheikh du Fadal bi defee ko noroon nam ko daan defee di ci sàkku ngërëmal ngërëmam noroon nam ko daan amee lu mu am dana ko ci def luñ ko jox dana ko ci def su mënoon ji séddale ay or sax dana ko def ngir njukkale ko Cheikh moo Fadal ndax lu mu def ci Cheikh Modou Fadal mu tuuti ci moom ndax Cheikh Modou Fadal lu mu masaan def ci Serigne Touba tuuti na ci moom kon moom it lu mu lu mu def ci Cheikh Modou Fadal rek day tuuti ci moom ba tax na daal waaj na ànd ak bokki taalib bi njaboot gi yëpp ngir fas yéene egg ca bisam bu rëy boobee te di ci sàkku ngërëmul waajuram ba Cheikh Modou Fadal foofu daal lañ tollagoon. mu mel ni tam bu dégg wax bu baax daanaka sëñ Abdou Fatah Mbacke jaayante ga euh, waajur ko tëdd ko jaayante woon ak sëñ Tuubaa jaayante boobu si la nekk waaye li moo xam si wàllu euh, li nga xam mooy dalal gan yi ndax ni ngeen dalal ganu euh, ganu Kazu Rajab bi ak ganu màggal ndax am na ute. du mën am wute ndax Kazu Rajab gi borom Kazu Rajab mooy borom gi ndax sëñ Fall moo woote màggal gi ba nopp mooy borom Kazu Rajab kon ñaar yëpp benn la. la muy def ci màggal ga ak la def ci Kazu Rajab gi lépp kenn tax mu di ko def muy Cheikh Modou Fadal ndax Cheikh Modou Fadal moo woote woon fii ci Touba suñ borom dafa dimbale nag Cheikh Modou Fadal ndax ñeent yi sëriñ bi gën a bëgg sëriñ Cheikh Modou Fadal suñ borom dimbale na ko ci mooy dëkkam bi mooy jumaam ji mooy jàngukaayam bi mooy màggal gi yooyu yëpp suñ borom dimbale na ci sëriñ Cheikh Modou tax na bu fekkente woote nañ màggal gu mag la muy def ci màggal gu mag rek def ci màggal Kazu Rajab ndax ki ki woote màggal Kazu màggal gu mag moom moom Kazu Rajab muy Cheikh Modou Fadal fas na yéene daal lu mu am dana ko ci def luñ ko joxe dana ko ci def ñuy ñaan suñ borom dimbale ko ba yéeneem mate am amam ndax li muy saa su ne li muy yéene day wuute lool ak ni mu ko bëggee moom moo tax ñu koy ñaanal ci barki Cheikh Mamadou Fadal waajuram boobu ba yéeneem tolloog am amam pour boobaa danañ xam ne Cheikh Mamadou Fadal ab liggéey ak kanam mi ngi fi incha allahu rabbi. jërëjëf Mbacke Mbacke ñu gis gi beneen wet suñu borom dogal nga bokk si sët yi nga xamante ne ñoo taxawal conférence bi am euh, chaque at si ñaari bés bu desee euh, màggal gi ñu gis ak coppite boo xam dafay am rek maanaam ñu gisoon at bu jot dañ leen def conférence ginnaaw gee war na leen dañoo gis ngeen fas yi def ko tàkkusaan ba pare tuddee ko waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall. waaw lépp nag ñu ko def ci ndigalu suñu kilifa rek ndax Cheikh Aboul Baraka moo fi nekkal Cheikh Modou Fadal jëwriñam mooy Cheikh Modou Bachir Cheikh Modou Fadal waaye keeru kàddu mooy sax Abdou Fatah mu ànd koog njaboot gi yëpp Cheikh Modou Moursala ak Serigne Ahmadou Badawi ak seen njaboot ñoom ñoo waxtaan ci seen biir. Eh, jàpp ne ren at yii ñu ngi ko doon tuddee njabootug sëriñ bi ak ñi nekkoon ak sëriñ bi ren nag ñu baaxoo ñu amoon yéene tuddee ko Cheikh Ibrahima Fall. Cheikh Ibrahima Fall nag dafa bari fu mu jaar ak Cheikh Modou Fadal foo xam te ne wax nañ ko rek barki démb eh, amoon na fu mu tolloon ci ndawee am na baat yu mu ko waxoon ne bu ma fàtte. bu fàtte joojee keroog bi li sëriñ bi gën a bëgg muy jumaa ji nga xam ne waxoon na ne ñi ko war a ñu ngi fi bu ko bu ndax gis na noppi gi moom sëriñ bi fekki wu noppi gi même suñ borom wonoon na ko noppi gi ci ci ci baatin buñ ko bu ko ñii defutit ñii defarut it ay jinne taxaw nañ ngir defar ko kon suñ borom dimbale Cheikh Modou Fadal ñeent yi ma la waxoon nii Sëñ Tuubaa gën a bëgg te te nekkoon ay naalam suñ borom dimbale na ko ci mooy jumaa ji kenn kon ne xam ne xam na am na ci xam na ci taxawaayam dëkkam biir kenn ku ne xam na ci taxawaayam ndax bu xottee mbedd yi nii ndigalam la eh, jàngukaayam bi it mook jumaa ji ñoo ñoo ñoo ñoo maase ndax keroog biñ biñ jumaa ji noppee la fi sakk ab jàngukaay boo xam ne ba tey jii boo fa demoon gis ñu fay tëral muy àllarbay tey jii juma màggal gi moo ko woti kon ñeent yooyu nga xam te ne bii ci lañ la ci la ñu bari ci lañ xam sëñ Tuubaa suñu borom dimbali Cheikh Modou Fall ba mu jaar ci loxoom ba mu amee nag ñu waxtaan ci suñu biir waxtaan ak suñu kilifa tudde ren Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina kas euh, conférence bi ñoom it seen xol sedd ci lool ñu dem wax ko ki nga xam ne moo fi nekkal Cheikh euh, Ibrahima Fall muy Serigne Cheikh Jëmbu moom ci jëmmi boppam ci daal di Cheikh Modou Fall la nekkoon muy Serigne Cheikh Jëmbu Serigne Cheikh Jëmbu Euh, te Cheikh Modou Fadal Cheikh Abdou Fatam bi dafay faral di wax na xëy na benn bés dem ci Cheikh Ibrahima ne ko damay jàng si ak taalibe mu téye ko weer ak fukki fan wëlbatiku ñaanal ko ne ko nag tey bis ni ki tey da ngay jàngale ak taalibe kookee ba jumaa ji noppee moom lu tuddee sooro bi nga xam ne foo toll di ko seen muy Cheikh Ibrahima Fall kon fàttiwu ko woon waaye euh, njabootu Cheikh Modou moo it duñ fàtte Cheikh Ibrahima Fall seen i doom duñ ko fàtte muy sët yi moo tax ñu waajal ko ren tuddee ko ko ci seen ñu ko tuddee ci seen ba noppi ñu xam ne màggalu Kazu Rajab dafa rëy at yi yëpp ñun ñi ñëpp ñiy tuddee sëti Cheikh Modou Fadal dañuy dem fay dañ fay fanaan nga xam ne bu ñu xëyee daanaka duñ xam ci lu ñu nekk bul butikuwaat bëgg nekkaat ci màggal sëñ Alaaji Baare gi bu ñu xëyaa nekkaat ci bisu màggal gi moo taxoon suñu biir nakat ren ko def ginnaaw takkusaan nga xam ne lu mu yàgg-yàgg incha allahu 10 heures 11 heures dana mën a jeex kenn ku nekk mën a dem sa kër a nekkaat ci ci loolu moo waral ñu ne nañ ko def ginnaaw takkusaan ci biir loolu yi ñu ñu xamal ñu bari ne Cheikh Ibrahima Fall euh, ku mag la woon mag la woon ku mag la woon ci kër euh, Cheikh Cheikhul Khadim waaye li muy mage mage mage de suñ borom ko jubóole woon ak Cheikh Modou Fall jox ko defal ko cër bu rëy rëy ba wax nañ nag euh, doom doomam ju góor ji mu njëkk am Cheikh Modou Fadal la ko tuddee Cheikh Modou Fadal ak Serigne Saliou euh, Fall mi nga xam te ne moom Cheikh Ibrahima ñoo bokk ndey ak baay ñooñu bokk nañ ci ñi ku tedd kër Cheikhul Khadim jullee woon ñu doog a dem ci guerre ba suñ borom dimbaleen ko moom dellusi woon na moom Cheikh Modou Fadal del si woon mooy Cheikh Mame Fadal mi nga xam mooy taawu Cheikh Ibra bi mu dellu see nag ginnaaw bi la waajaat di dellu Cheikh Ibra nag ne ku ko boo xool ba ma xool ko ndax bu demee du dellu si ndax lam yóbbaale woon bokkut ak li muy yóbbaale waaw kookee nag cër boobu mu jox Cheikh Mame Fadal moo waral ñu koy xeñtu ci suñu diggali kilifa ba jox ko bis bi tey incha allahu rabbi xam naa ci kanam tuuti 4 e 5 heures lañ ko fas yéene def te boo duggee ci njabootu Cheikh Ibra it ñu baree baree baree bëri eh, joxoon nañ seen i njaboot Cheikh Mamadou Fadal ñu nekk ci kër gi loolu yaakaar naa euh, euh, bu sëñ bi dafa xat waaye bu fekkoon wax na de loolu dana gën a mën leer ñun dañuy nab nabi rek ngir euh, xeeñtu ngir sàkku ngërëm moom ci wax ji rek waaye bu doon moom lay lay a leer. jërëjëf Mbacke bu ñu déggee ci rek day mel ni sët yi dañoo delloo buum ca booy beeg waaye dañoo gis màggal bu weesoo waajur yi ku mel ne sëñ amoon Ba day sëñ Abdou Fatah sëñ ba Bassirou dañoo gis sët yi dañ si am pàcc bu rëy bu weesoo conférence bi ngeen di amoon tey si ngoon ban geneen taxawaay la sët yi am si màggalu Kazu Rajab bi waaw sidi moom nag naka jekk duñ def dara nag ci lu suñu ndigali kilifa ndax lépp luñ mën a def tey bu ñu ñëwoon nañ bàyyi euh, conférence bi noppi nañ ci bay ilal abad dootuñu ko def xëy ci seen i ndigal seen i ngërëm rek moo tax ñu di ko def euh, taxawaay yi ci amit mooy def nañ benn majalla maanaam benn téere boo xam te ne bi dañ ciy jàngale Cheikh Modou Fadal euh, téere bi génn na léegi ni andi lu ci bari agsi na Cheikh Moustapha moom Cheikh Modou suñ Mamour moom Cheikh Modou Fadal moo moo ko yor ñoo loolu ñu ko dénkoon sëriñ Cheikh naa moom Cheikh Cheikh Mourtada ak ak lenn ci commission yi andi nañ ko incha allahu rabbi dana ci am loo xam te ne bi ngoonee danañ ko génne ci base ba li ci des bu subaa bu ñu demee ci conférence ba danañ ko génne euh, ngir nit ñi yóbbaale ko am na ay ay nazian ay ndénkaane yoo xam te ne bi yoo xam ne dañ ko def tey jii incha allahu rabbi danañ ko jàllale ngir yee nit ñi ci actualité bi ñu toll ndax Touba day dëkkub sëriñ Touba bu mu fonk ñu ngi doon dénkaane ci biir denkaane yooyu it euh, bu ñu yàlla dimbalee ba euh, oto yi di ñëw ubbi ñu denk suñu bopp di dénk ñi nga xam te ne bii soobu nañ ci ñoom ci seen biir ñu xam ne am nañ lu leen lu loo xam te ne bii moo gën lépp muy Serigne Touba loolee nañ ko sàmb ci seen i diggante ku nekk kum neex na nga dem euh, politique yi ndax kenn ku ne am nga ci droit kum neex na nga toog sa kër waaye bu kenn ŋàññi sa morom. ndax li ñu li ñu boole muy sëñ Tuubaa moo ëpp lépp solo dañuy dema dem ba lool a jeex sëñ Tuubaa des fi ñu bëgg nag bu ñu fa demee danañ fa jàllale benn ndénkaan boo xam te ne ñi danañ bàyyi xel na kat Cheikh mo sëti Cheikh Modou Fadel am na lu ñu jàllale tey loo xam ne dénkaan lañ ko def ngir ñi nga xam te ne bi suñ borom dimbale leen ñu war a nekk ci wàllu politique ñu xam ne ku ka neex kam neex nag mën nga mën ngaa politique waaye kum neex mën ngaa toog ka toog it mu jàpp ne nag moom moo nekk ci dëgg ndax kii lii ko neex mu nekk ci kon léegi nañ bàyyi xel lool li li leen sëñ bàyyee muy ak mbokk nañu ñu sàmm ko loolu am dénkaane la buy jàll ci biir denkaane boobu it am na beneen dénkaane bu ñuy war a bu ñuy joxewaat boo xamante ne bii dañ koy jox ki fi nekkal nguur wax na ko suñ borom moo ne maa bind maa am nguur maa koy joxe comme nag ku ma neex la koy jox kon yow bu la yàlla dimbalee ba nga xamante ne bii am nga nguur mu teg ko ci sa loxo xamal na yàlla amul cër eh, benn cër muy nguur boo jàppee ne benn cër la yor la yàlla yor yow la ko jox kon da da ngay jàpp ne yàlla ñe amul keneen kum cëral ki yàlla cëral muy borom nguur am na yeneen cër yu mu joxe. su ko defee yow mi nga xam ne yàlla la tànn nga yor nguur xamal ne yeneen cër yi am nañ ñu ko suñ borom jox nga bàyyi xam ne kenn joxul sa bopp nguur kon kii ki yàlla jox nguur na jàpp ne moo yor nguur ñim joxul nguur it am na mu jàpp ne kooku am na am cër yeneen yoo xam te ne bi jox ko ñu yorul nguur mu bàyyi leen seen cër yooyee te ne suñ borom mooy yor nguur te ko joxe jox na la ko am na yeneen cër yu muy joxe ñoo xam ne am na ko joxe nga bàyyi leen yooyee ci biir loolu ñu bàyyi xel ne yow journaliste bi nga xam te ne bii seen classe gi ñooy jàllale yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon na ne man tasama hadiisu xawmin ba xëyri isni ba xëy na isni eh, fay noo lunku yowmal xiyaamati maanaam ba képp koo xamante ne bii yaa ngi déglu waxtaane ay nit ci lu du seen digal su boobu bis ci taxawee ay ay unk lañ koy def di ko génne ci say nopp kemtalaay la nga ci déggoon. kon yow mi nga ne da ngay déggan déggantu dem di nettali ji te la ngay nettali eh, léeru la ne nga bàyyi xel loolu bu baax a baax waxoon na it ne képp koo xamante ne bii yaa ngi seere loo xamante ne bi du dëgg maanaam ñu fay la nga ne da ngay jàllale ay wax joo xam ne leer na nañu du dëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na sa làmme kon yéen nga bàyyi xel euh, la si biir nga xam ne yow la engagé sa diggante ak sa borom ba nga xam ne wax nga nga nga jiital ci yàlla loolu bokk na ci ndénkaane yi nga xam te ne ñu ngi koy dénkaane bu ñetteel ñetteel bi nga xam ne ñu ngi koy dénkaane ñu bàyyi xel ne dëkk bi kat fi ne nii rëb na ba ñu fab ay xale di leen gaañ ñii ñu ngi leen di fëpp di jël seen deret ñi nga xam dañ leen di wat ñii dañ leen di di sax yàlla mi yàlla dogal na eh, fii ci kër du fa Fatah gi am na bakkum taalib boo xam te ne bi eh, eh, dañoo jàppoon doomam boobu fekk fekku fi sax sëñ bi jàppe ko fële ca saam indi ko bi fii ci yoonu nit ñi ñu denc ko fa yàlla mi dara tawut benn jigéen romb ko fa dégg muy kër kër yi mu ñëw euh, euh, fekk ko fa mu nekk boo ay nit ñu ñëw tekki si ko mu sonn lool ñu wutal ko ndox boo ko wutal ko naan mu leen fi nit ñu bari bari dañu jàpp ne nii lii ay wax la la lu am kon mu ñu bëgg dénk ñi nga xamante ne bii ñooy jàpp nit ñi di leen gaañ te xam ne yonent euh, suñu alxuraan war foo wax ne képp koo xamante ne rey nga bakkan ci lu du dëgg na la wóor ne daanaka rey nga ñëpp alxuraan ko wax mu waxaat bet beddiwaat beneen aaya boo xam ne dafa wax ne képp koo xamante ne bi rey nga jullit ca tay ko sa sa kër mooy sawara kon loolu it ñu bëgg a nit ñi nga xam te ne bii ñoo ngi fab sacrifice nit ñi ngir alal nga xam ne yàlla ngi leen di xaar woo judoo ma amidoo adiran maa amidoo adiran maanaam képp koo xam lépp loo xamante ne bii lu waay defoon la bis ngi ñëw boo ko teew teglu teg ko sa loxo lépp loo xamante ne bii def nga ko téere lañ koy def teg tegal sa loxo nga jàng bu fekkente ne bii leer na la naññi nga nangu la nga xam te ni moo nekk ci téere ba fa lay laal xam ne boo ko nanguwut nee na cër bu ko defoon taxaw jóg taxaw ne maa ko def yawma ma kaanu yaamaloon bis ngi ñëw boo xam te ne làmmiñ dana wax lu mu lu mu tuddoon bët dana wax lu mu xooloon kon kon raw xam te ne bi dañuy sacrifier xale yi nañ leen bàyyi xel ne alal jëru ko lu ñu ko jënd ci àdduna rek jëru ko bu ñi ñi ngay rey ci bitim réew loolu ci ndénkaane la maanaam dénkaane lañ ko bind lañ ko def boo xam te ne bi incha allahu rabbi muñ ci yàlla yóbbee eh, ña ña ñu ci bitim réew ñu wax ñi nga xam te ne bi ñoo leen war a dimbale ñu dimbale leen nga xam ne moomuñu seen bopp yoruñu seen bopp maanaam dañoo fal ay nit di leen fay yoral leen lépp ba ci la ñuy lekk ak la ñuy naan ba ci kerna bi ñuy sécurité ñun ñoo leen ko yoral kon sécurité nit ñi ñoom ñoo ko yor fii ci réew mi ak ci bitim réew kon loolu nañ ci bàyyi xel loolu it bokk na ci dénkaane bi nga xam te ne bii ñoo ngi koy ñi nga xam ne bii ñoom la fi yàlla teg euh, ak ak yeneen dénkaane yu yaatoo ci biir loolu euh, kii bi sax ngi ne journal bi nga xam te ne bii moom lañ moom lañ bëgg a dénkaane incha allahu ren ji mi mi ngi ne alfadila lu lañ ko tuddee incha allah mooy bi ma doon wax ni fekk na suñu bàyyi mi yor ko moom la génne junj. waaw. Mbacke ndax li dañ ko fas yéene wecc wala dañ koy baaxee si mbokk taalibe yi. waaw xam naa am na ci yoo xamante ne bi dañ koy baaxee taalibe yi nga xamante ne bii ñooy ñëw ca foofa ca euh, conférence ba euh, su ko defee bu bu loolu weesoo nag ci la ñuy xool ba xam euh, da am yoo xam ne dañ koy wecc ko wala nu ñuy def waaye li ñuy li ñu ñor ñoom ñu daal mooy xamele Cheikh Maodo Fadal. Cheikh Modou Fadal xamale ko lu gàtt la mooy li yitteem ak bëgg-bëggam mooy nekkoon ci liggéeyal Serigne Touba rek ba am ngërëmam suñ borom dimbali leen ko am na ngërëmam kenn ku ne xam kenn ku ne xam na ne xaw ma lu yàlla defal Serigne Touba ba mu fayee ko lii mu ko fayee waaye ñun it xamuñ lu Serigne Touba lu yàlla Cheikh Modou Fadal defal Serigne Touba mu fayee ko lii mu ko fayee waaye kenn ku ne xam na ne Serigne Touba fay na Serigne fal waaw mbaa kàddu gu mujj ndax xam nañ jot gi euh, mayu leen ko dañoo bëggoon na nga baaxee mbokk taal bi la teewlu si Bichri TV ay kàddum dénkaane Cheikh Mouhamadul Fadal. kàddum dénkaane Cheikh Mouhamadul Fadal mooy li Cheikh Abdou Fatah di wax rek moom tàmbalee ci sëñ bi yem ci sëñ bi liggéeyal yàlla ci jaameen ci jaamam yi loolu rek la fi nekkee woon ëmb ñëpp wax nañ ne képp koo xam ne mas ngaa nekk ci lu muy tere bu la njëkkee gis dootoo ko gis loolu doxinu sëñ Tuubaa la woon lépp koo xam ne nekk nga ci lu tere bu la njëkkee gis dootoo doo ko gis Sëñ Tuubaa dafa wax ne bi nekk ci njaareem fere yi ku masaan def fu lu séen foo xam ne da koy tere bu la fa séenee sax da lay gaaw làqatu waaye daal di ne wooteem ndaje nañ woo fere yi ba ñëw mu wax ba waxaale la loolee nga defoon su defee nga xam ne yow loolu si yaa ko tax a jóg loolu war ma war ma la wa man yu'azzim hurumaatillaahi fa huwa xayrun lahu inda rabbi lépp lu yàlla warmaal ab jaam daf ko warmaal ndax loolu moo gën moo taxoon mu nekkal fii Serigne Touba rek yaatu lool laabiir lool baax lool mën a muñ lool daj fi lu ne nag li muy baax baax ak li ko Sëñ Tuubaa may li muy rëy rëy coono coono bu toll noonu am na ko ci àdduna si te loolu ñu bari xamuñu ko jóge na fii sax bëgg gàddaay dem egg na ci sax ngir rek jafe-jafe àdduna waaye képp képp eh, ñëpp xam nañ ne eh, bu jafe-jafe am ne amee rek ak jàpp ne leen ci ginnaaw suñ borom dimbali na ko loolu loolu suñu borom moo ko wax ci alxuraan eh, bu jafe amee rek jàpp ne leen ginnaaw suñu borom dimbali na ko mujj gi moom alhamdulilah. ginnaawam it alhamdulilah ñi bëgg bëgg ñi bokk Cheikh Modou Fadal ñoo ngi sant ñi ci bëgg ñi ci bokk ti ñoo ngi ci bokk loolu moom suñ borom ak ko baaxe tom thème bi na xam naa ñi ñu ngi ko tënk rek ci mbirum ci xam-xam. da daarul maarif ñu ngi lañ ko tuddee mooy këru xam-xam nga tey bu ñu fa egsee incha allah danañ danañ fa génne lu baree bari la loo xam ne bi danañ fàttali ñi nga xam ne xamoon nañ te fàtte ñi xamutoon i dañ leen xamal. waaw foofu daal lañ ko tënk du jubluñ ci lenn nag euh, wàccaay bi li muy yàgg-yàgg ak li muy bari bari ak coono yi li muy bari bari jubluñ ci lenn am ngërëmul sëriñ sëriñ bi rek waaw loolu daal lañ ci jublu ndax ñoom ngërëmul Cheikh Modou Fall la ñuy sàkku ñun jotuguñ ci Cheikh Modou Fall ñoom la ñuy yem bu ñu amee seen ngërëm mën na leen am na ngërëmu Cheikh Modou Fall lu ko am ngërëmu Cheikh Modou Fall am nga ngërëmu Xaadimu Rasuul sallallahu alayhi wa sallam Mbacke dañuy sàkkoon xam ne euh, téere maam si ñaata lang ngeen ko liggéey waaw xam nga bii xadadu ah, ah, salis bi mu ngi ne maanaam li mu ñetteel bi biñ ko tàmbalee génne ak léegi bii mooy ñetteel bi yoon ñu génne ko te dañoo fas yéene incha allahu rabbi at mu jot dañ ci continuer di di ko ci di ko ci di ko génne ndax fi ne nii boo duggee ba ci biir ay sëti moo Modou Fadal la nga ciy fekk gis nga ko gis nga ko ne ak lenn ci sëriñ si yoo xamante ne bii ku mel ni suñ Cheikhouna am sëñ Mor Mamadou da ak sëñ Fadilum sëñ Mamor ñoom bokkoon nañ ci ñi nga xamante ne bii ñoom ñooy ñoom lañ dénk liggéey bi ñaari lang lañ ko def muy français ak arabe waaye teewul nag am na ñoo xam ne jaar nañ ci daarul maarif boobu muy daara ji nga xamante ne bii Cheikh Modou Fadel moo ko moo ko sosoon ci jumaa ji sëñ eh, bu sa ilimaan daana ci jàngale waxtu yu ñuy wax ak yow sëñ Mbàkke Jaxate moo fay jàngale ñu naan ko sëriñ As Jaxate moom sëñ am sëtu ñu bari ci ñun ñuy jàng ba ci mën mi jàng jaar naa fa kon loolee eh, moo taxoon ñu def ko ñaari langue muy français ak arabe bu ñu yàlla dimbalee bu beneen yoon du tee eh, kayit yi ndénkaan yi ñu def dañ ko def olof ngir ñi nga xam ne dégguñu français dégguñu olof ñu duggee bu ñëwee bu ñu leen ko joxee ñu man koo jàngal seen bopp xam lan lañ ci jublu waaw waaye ren daal bii ñu def français ak arabe lañ ko def su beneen yoon xam naa jot gi sax moo ñu ko mayit sax ne amoon nañ eh, yéene def ci olof waaye dafa mujjoon xoj maanaam waxtu wi ndax daanaka demb wala bërki demb daanaka la war noppi moom moo tax amuñu jotug man koo traduire en wolof waaw beneen yoone bu soobee yàlla euh, ndax xam naa ne wolof bi moom dana dana yit dana dana am ñum yitteel daal ndax ku mënta wax fran ku mënta laa lire français mënoo la lire arabe wolof moom xam naa bu fekkee ne jàng dara da moo tax majale bi daal dañ koy yamale rek ci daarul maarif bi fi jaamee Touba maanaam ci jumaay Touba daal moom foofu daal lañ ci lañ ci tolloogun man xaju Cheikhul Xadim fii tarbiyati wa taalim mi ngi nii waaw fi yàlla nañu ci yàlla yóbbu suñu boroom defal ñu ndimbal ba lañ ci wër muy ngërëmul sëriñ bi ñu daje ceeg moom rek waaw daal amuñu fenn xamuñu lenn bëgguñu lenn lu dul sëriñ bi rek seen ngërëm daal la ñuy wut waaw yàlla ñu ko yàlla bale bëggoon nañu nga jël jumaa ju jàgg jee nag jumaa ji bu ko Sëriñ defaree ba noppi nii la meloon waaw waaw na ñu jëlale ko ba ñu ko <laughs> xamutoon waaw kay mu ngi waaw waaw jërëjëf ñoo ngi leen di sant yéen bu baax ci turu sëriñ bi ngeen ci jublu bu tuddee ko bisiri suñ borom defal leen ngeen ngeen jot ci mafaatix bi mafaatix al bisiri suñ borom de bu ngeen ci jotee rek lépp dana jàpp ne incha allah ubbikaayu mbégte waaw ndeysaan jërëjëf sant nañ bu baax. ci tur. añ na fa màkk sànni jàmm la foon doj wa dem la dem na Safa tam dalli fa ka xaw ma kaama dem na langale fa Cheikh Fallo mu ne su la ngañati yaati suukar ma sa bali jël na ndam la bambani fallu laayi fallum yàlla alaaji Mbakke bu sey ni jaayam Bamba di baayam Falilu di jaaram yaa jara way yaa jara joxi daaya